jaar bi ba sible na de combat des titans tëkkuwante bu metti lañ fi nekkee woon lu waay doon jaay tey mu lamb ndeysaan diggante Toubacouta ak général Malika buuru Saloum général Malika eh, eh. buur di plus de cent bu Thiès général Malika di plus de cent bu buur général Malika buur général Malika munu yomb ndeysaan tëkkuwante bëri woon na eh Zé na tànk buur ba de général bu général war na buur ndox de buur ba di Zé Zé na ko Zé daan na buur de eh, eh. la waa Zé